Euh, juróom-ñaari waxtu toftale ñetti simili ji jéggalu ci yéex tàmbali bi mbokk téléspectateur de 2STV da leen jàmm euh, si makkaanu première de télé bu euh, Sénégal xibaar yi ñu dikk ak yéen la ca gën a fës Euh, bokk na la ca gën a fas ci bopp xibaar yi ab dal moo daal di euh, daanu fale ca Médina euh, rue 19 angle 18 loolu moo waral ba ñaari doomu aadama daal di si ñàkk seen bakkan mu nekk aw tiis bu nga xam ne nag dal na ci askan wi dëkkee ci boobu lépp bërëb kenn ki nga xam ne nag moom moom kër googule moom li muy xam ne rek mooy xamul woon ni këram googee toll woon na ci jamono yu nga xamante ne ni yàqu gi jéggi na dayoo wax lu ñeen wàllum campagne électorale ndax jamono ji rek ñu ngi ci li nga xamante ne mooy ay fan ay waxtu sax yu néew daal di des ngir ñu amal euh, élection législative ni ki dimanche euh, gile imaam ya nga xam ne nag ñoo nekk ca Thiès ñu ñuy ñaax rek askan wi ñu génne euh, dem daal di voté leneen la ñuy wax lu ñeel wàllum wér-gu-yaram ak feebar yi di hépatite professeur Aminata Diallo di xamale rek sénégalais ñu dem ñu daal di leen saytu seenu yaram maanaam lu ñeel wàllum dépistage loole sax dana tax ba rek ñu war a mën a jàmmarloo ak feebar bu nu Euh, dalee nag jàmm comme nañ ko junde sa bopp ba wax lu ñeel la nga xam ne xew na ca Médina euh, rue 19 euh, angle 18 mu nekk nag rue 39 angle 18 mu nekk aw tiis fu nga xam ne ab dal rek moo daal di daanu loolu moo waral ba ñaari doomu aadama daal di si ñàkk seen bakkan ni ki tey dem demoon ci boobu la bërëb ngir saytu mbir mi naka la fa demee waaye nag borom kër gañ fa fekk moom la muy xam ne rek mooy xamul woon ni këram toll woon na foofu foofu ba dal bi euh, mel ci anam bu nga xam ne rek dana wàcc bay dal ci aw askan wu nga xam ne fa la ñu dëkkee noonee nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci euh, Medina ñu ñaax rek njiiti ngir ñu jël ay matuwaay nu mu gën a gaawee Fatimata Tall lañ ci àndal yi yeewoo ca Médina ca rue 39 angle 18 ginnaaw nag ba fa ab dal daanoo ci àllarba ji ñaari nit jot cee ñàkk seen bakkan boroom kër gi nag daal dina xamle ni kër gi naam daal di woon na ko donn ci ay maamam waaye xamul woon ni bâtiment bi màggetee na nu ni mel. Euh, kër gi nag euh, bi ma man jëluma woon sama sama kii parce que euh, dama dama judd fekk ko fi bon ñuy def ay ay ay kii ay bricolage di di di il ñu dem réparer. non non vraiment xam xaw ma ko woon franchement xaw ma woon ko ma kii parce que bu ma fekkoon ne dama dama dama doon liggéey dans les bâtiments wala yooyu dinaa jël samay samay samay responsabilité fii laa juddoo fii laa juddoo man moom ma kër gi c'est que sama arrière arrière grand parent ñoo ko moom. man nag ñoom ñëpp dañu gaañu man maa fi des comme mag. kenn ci mbokk yi nag mi ngi indi ay seede rek ci kenn ki ci jot a ñàkk bakkanam doon jàngale ci daara joojee nekkoon ci biir kër gi. maman Roxaya mënu woon yàgg si àdduna parce que boo ko xoolee ku nekk li la yàlla may boo xoolee xam ne kii bokkul woon fii nitu àjjana man sama xarit la woon de parce que sama doom bu jigéen ñoom ñaar ñooy ànd euh, waxtu du ko raw si xale bu toll noonu. xal alxuraan la xam jàngal xale yi te maman boobu mu ko fekk mu sell lool julli ba jàngal xale yi alxuraan ñibbi doon dimbale yaayam bëgg yaayam lool lool lool te si toog si wetu yaayam ku xiif mu boo ñëwee moom moo lay may nga lekk. addu gi nag benn la ci habitants yi nga xamante ni ñoo dëkkee ca quartier boobu daal di nañu xamle ni nguur gi war na rek jël ay matuwaayam ci kër yi nga xamante ni dañuy waaj a daanu. segg boo xam ne bâtiment yoo xam ne ñu yàqoon yëpp ñu tabax ñu daanal ko yóbbu ñoo xam ne seen avenir fu ñu dëkkoon ñu yóbbu leen feneen parce que c'est pas la première fois mi ñuy dal lu mel nii bii Medina. ah naqarlu ko rek. naqarlu ko rek parce que lii moom tey jii métti na ba ci kanamu yàlla métti na ba ci kanamu yàlla. xam nga mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam tey jii dama gëm ni maanaam boog mairie bi moo war a ñëw jéem a licencier kër ya nga xamante ne dañoo màgget donte nit yi amuñu sax mais nañ leen jéem a génne xool nañ lañ leen di dimbalee defaral leen ko. parce dëkk bi dafa metti location bi cher na surtout ma côté Médina bi fii location bi cher na moo tax kenn nanguwul génn sa kër dem luwe ji. loolu daal xam naa ni état war nañu see dimbale dimbali. bile moo nag nga xamante ni doonoon na ab daara alxuraan lu yemoo ak juróom-ñeent fukki ndaw doon fa jàngee ñu daal di woon bàyyeeku ci daara ji laata nag dal bi di wadd autorité administrative yi daal di woon nañu artu rek ci urgence nañu daal di daaneel lu yemoo ak téeméeri habitation yu nekk ca commune boobee nga xamante ni dañoo daal di màgget jamono ji nag laaj bi samp mooy nguur gi yan matuwaay lay daal di tëral ngir rek nu ñu daal di wee indi ab saafara ci récurrence su yile incident nga xamante ni bés bu yàlla sàkk moo ngi am mu ngoog Fatima Tall Medina la ñuy desandi ba léegi ndax umpleen ni euh, boobu lépp diwaan ñu ngi ko taxawal ci atum 1914 loolu moo waral euh, ba ñenn jàpp ni sax yenn kër ya nekk jamono ji euh, màgget na lool te it njiit yi war nañu xool rek nan la ñuy def ba ña nga xam ne ñoo fa dëkk ñu daal leen may rek wala rek ñu daal leen xool na leen leen jàppale ba ñu am fu ñu nekk rek ba mën a defaraat yooyu le kër lu ko moy rek daanaka jéey yi duñu ci génn Cheikh Kébé lañ ci àndal Euh, demoon na ca Medina googule. Medina nekk benn quartier bu nekk ci Ndakaaru jamono yi nag ñi fi yeewoo nelawatuñu ba yëndoo li ko waral mooy seen dëkkuwaay yi am yàqu-yàqu ñenn ci ñoom nag di xamle ni yàggaay bi moo waral li ni mel. ñeneen ñi xamle ni tiit ak njàqare rek lañu ñu amee. kër yi fii kër yi yàgg na yàgg goo xam ne parce que bu Medina amee su Medina amee cent rek kër yi am nañ cent waaw Médina su amee 100 ans kër yi am na 100 ans te Médina am na 100 ans depuis xaw ma 2015 xaw ma waaw kon nag kër yi am na 100 te kër yi dafa kër yoo xam ne dafa vétus dañuy màgget. te nit ñi dañ du rendre compte si kër yi màgget yeeg yooyu dañ ko dañ ko dañ si doon dafa seen seen xel quoi yenn saa yi te xam kër tabax su màggetee am 100 ans bu ndox bi ñëwee yàgg fa yàgg fa day lekk day lekk kii bi. day lekk bati day lekk fer bi. problème mu Medina. moo dafay karaful boo xam ne daal ñi ci gën a bari fii la ñuy liggéeyee. xam nga booy liggéeyee fii itam bu fekkee ne dangay ngay liggéey fii. nga bugg a fas yéene dem boo Kër Massar dem Louga. ba paas euh, continuer paas yi aller retour. te doo noppaleku. te lay jaral néeg lu mu seer seer si. nga dem jël ko. lan moo waral ñu bari fii ci Medina dëkk ci bërëb yi nga xamante ni bari na ay yàqu-yàqu ñenn ci ñoom di ci indi ay leeral. nañu taxaw ci affaire bi location location na. cher na deux cent cinquante mille francs lo eh, boo ko boo jëlee appartement deux cent cinquante mille la ngay dundee la ngay ndékkee la ngay añee la ngay reeree la ngay fayee location bi sax parce que nit ñi tamit boo leen bu ñu toogee seen kër yi ne dañ génn fan lañ leen di def bu ñu leen école ba école ubbee fan nañu jëm ah mais nan ne wutal fu ñuy dëkk ba pare wala ñu jox la ñu tabax seen kër yi avant ñu leen di génnee. mu mel ni jafe-jafe bi ñoom askanu Médina yàgg nañ ko wax ci noppi kilifa yi. waaye mu mel ni jamono yi ñu ngi gën a sàkku kilifa yi ñu dimbali leen. dafa metti nañu waxante dëgg na état jël responsabilité am daal tabax kër yi dimle borom kër yi kër yi nekkaat en euh, nekkaat en sécurité nit yi nekkaat en sécurité ndax dama yaakaar ne état yi itam mooy nit yi te fi mu nekk nii comme moo jiite moom la yàlla jox réew mi na xoolaat côté boobu bu baax a baax jéem a liggéey ci côté boobu. solution bi koy mooy rek ñu ñu seet rek kër yi fi daal. ñu sàmm seen kër yi di xool di contrôler seen kër yi di contrôler kër yi rek li mu ci xam mooy loolu di bàyyi xel ci kër yi ñu bàyyi xel ci bâtiment yi di ci bàyyi xel bu baax a baax. dajale kër yi nga xamante ni dafa amoon yàqu-yàqu ci atum 2021 daal di nañuy wàññi. lu tollook téeméer ak fukk ak ñaar ci ay kër yoo xamante ni amoon na yàqu-yàqu waaye nag jamono yi li ñuy xaar ñoom askan wi kilifa yi jël ay dogal waaye li wér ba wóor mooy kër yi mu ngi wëy di faat ay bakkan. Euh, jóge ba Médina euh, dem ca diwaanu Ndar euh, géej foofu nag daanaka lu ñeel wàllum élection législative jamono ji nag jumtuwaay wala it tax la nga xam ne soxla nañ ko ngir rek mën a amal élection yooyee ci anam yu mucc ayib daal di nay yegg see foofu le ca Ndar préfet bi nag daal di nay xam ne ni matériel boobee dinañ ko jël yóbbu ko ci diwaan ak gox ak goxaat yi dañuy teewlu Mor Ndiaye ci micro Moussa Diagne Abdou Boye actuellement ñu ngi ci dernière ligne droite bi euh, dañu dugal euh, dañu jël ay urn donc ñu ngi tollook ñaar téeméer ak euh, fukk ak juróom-ñeent bi tolloog bureau de vote yi urne bu nekk dañ ci jël bulletin yi bulletin yu candidat yi les juróom yi euh, ñu def ko ci def ci ay procès bo ay enveloppe de vote ak petit matériel bi ay cachet yooyu donc mën naa wax ne tey buñ paree suba suba buñ ne woon wote bi suba la ñu mën ko organiser donc tout est fait prêt en tout cas pour ce qui concerne organisation matériel bi donc xoolal petit détail yi moo ci des donc mën nañu wax n lépp yemb na Euh, leneen li ci topp mooy euh, sànq xam nga démb dafa taw dañoo defoon euh, le tour de la ville dem di xool centre yi centre de vote yi naka la tëdd naka la bindoo bi ñu demee nemmeeku am na ay tepp tepp ndox yoo xam ne ñoo des ci cour bi waaye donc loolu yaakaar naa sax bu tawul mën na mën na seey mais sapeur pompier yi danañ ci def lu ci matuwaay yëpp. li ci war pour que ñu dégager ndox mi pour que bés bi bu jotee nit ñi mën a ñëw wata ci jàmm dell ci jàmm mooy actuellement li ñuy def nii mais ci geneen wàll gi dafa am arrondissement raw arrondissement raw fa la ñuy nemmeeku lu mel ni commune bu Paal commune bu Fass Ngom commune bu Gandon ak commune bu Ndiébène Gandiol loolu su préfet moo koy gérer mais li ma wax sànq dal na xel c'est rassurant parce que lépp yemm na Mor Ndiaye nekk préfet ba ca Ndar des ba léegi ci wàllum élection yooyu ndax um leen ni campagne bi jamono ji ñu ngi koy woyal daanaka sax euh, li si des matatul ñaari fan loolu moo waral ñu daal di samp ab laaj ci juróom-ñetti liste yi nga xam ne ñooy dem ci boobu lépp euh, jongante na naka li ñuy def ci waxtu yi nga xam ne dese na leen te néew na nan la ñuy def ba rek mën a am baatu askan wi mu nekk ab jàngat bu nga xam ne kar euh, Kardiata Niasse moo ci def moo moo ko daal di def. ay waxtu rek des laata njeexitalu campagne électorale yi jëm ci élection législative yi juróom-ñetti coalition yi nga xam ne ñooy jongante leen leen desee ngir ñu woo nit ñi ngir ñu votel leen mel na ni bëreetul. ñaari ka ñaari fan yi nag dafa nekk ñaari fan yu déterminant euh, ñaari fan yi war na tax euh, képp ki nga xam ne candidat nga tête de liste nationale ak tête de liste départementale yi war a mën euh, a baral li nga xam ne moo di porte à porte parce que porte à porte bi mooy forme de communication bi gën a que da ngay dem jàkkaarloog askan wi déglu leen wax ak ñoom ñu laaj la ñu conseiller la jox la ay recommandations nga war a mën a argumenter pour convaincre leen. convaincre à tout prix mu mel ni mooy challenge bi nga xam ne moom la coalition yi lancante waaye kan la ñu war a convaincre bu ñu sukkandikoo ci analyste bi challenge bi moom mooy fexe ba convaincre masse silencieuse bi. li nga xam ne moo di masse silencieuse masse silencieuse bi nga xam ne bokkul ci parti bokkul ci coalition moom dafa toog ne tekk di déglu donc ñooñu ñu si bari am na ñoo xam ne dañoo indécis ndax xam daañu voté wala duñu voté donc ñaari fan yi defe naa ni candidat bu si nekk dina mën a andi argument yi tax Euh, ñii nga xam ne ñoo nekk si mars googu war a mën a woote waaye du woote dong naka la ñuy fexee ba ñu woteel list bi nga xam ne ñoom la ñuy moom la ñuy wax waxal euh, muy liste bu xam ne dafa nekk si nguur gi wala illaa liste yoo xam ne dañoo nekk si biir kuje gi donc de ce point de villa ñaari fan yi daal euh, ku si mën Euh, loo mën xam naa daañu ko si daañu ko si def euh, du meeting du leneen waaye defe naa ne jàkkaarloog askan wi. ndax dañuy amal ab cohabitation ci biir assemblée nationale wala coalition bi nekk au pouvoir moom mooy nekk majoritaire ban xar kanam la jox fukk ak ñeenteel législature bi ñaari fan rek des ci élection yi candidat yi jamono ji dañuy jongante ci wàllub xel ak xalaat ngir fexe ba pencher balance bi ci seen côté. Euh, juróom-ñetti liste yooyee sax ci campagne bi mu mel ni rek benn bokk yaakaar coalition euh, bi nga xamante ne nag moo boole yeewi askan wi ak wàlluwaay te aar Sénégal dafa mel ni ñoom la ñu gën a gis ñu gën a fës ci bi lépp campagne électorale loolu moo waral ñu daal di samp ab laaj ana fu euh, juróom liste yi ci des daal di nekk loolu moo waral ba fësuñu rek ci campagne électorale bi mu nekk ab jàngat bu nga xam ne dañ ci ànd ak ma jigéen Diouf juróom-ñetti list fas yéene dem ci jongante législative yi lay ci bisub 31 juillet ñoom ni ñëpp nag ay place ñu wut foofee ca pencum ndaw réew mi ci lool la lañuy def campagne campagne boobee nag mel na ni ñaar ba ñetti list sax lañ ci gën a ràññee ndax ñi ci des suñu ci lool. dañu parti politique nañ la dégg nan lañ koy liggéey nag loo loolu la leen yeneen parti yi ci des dañ naan xëy na ku am euh, daraja. ba mën a fésal li nga xam ne moom mooy seen nekkin euh, moom moo leen xaw a manqué maanaam leadership ak li jëm ci wàll li nga xam ne moom mooy expérience terewut nag ñu mën a dugg ci li nga xam ne moom mooy askan wi dagaan baat yi li nga xam ne moom lañ koy bëgg te ñu ngi koy jéem kon dañuy wax ne ci wàllu bi nga xam ne moom mooy taxawaay politique nag dafa laaj ay jumtuwaay te jumtuwaay yooyee bu dee am nga xam-xam bile mooy da ciy tegu ak it mbooloo boo xam ni saa yow wootee ñu mën da wuyu ba ciy vote sax ñu topp la dafa jar waaj dafa jar li nga xam ne moom mooy ay jumtuwaay moyen moom mooy politique waaye waaye boo àndeek li nga xam ne moom mooy sa xéexat sa mer euh, jóg ne fa fee ma nekkoon banaa taxut ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sa ginnaaw topp la de du ñàkk ñu dem waaye euh, riir mu nga doon yaakaar du demee noonu loolu moom mooy politique u Sénégal malheureusement jumtuwaay yi foog mu ànd ci pour nit ñi mën a gunge la ci li nga xam ne moom mooy sa bëgg-bëgg. ci fàttali nag wàccaayu élection législative yi bëri woon na coow loolee ndax condition yi nga xam ni ministère de l' intérieur ak waa direction générale des élections dañ koo laajte woon mu taxoon sax seggi bu bëri am ci. ndax seggi bi desul bu ñu xoolee am na liste yoo xamante ni dañoo mel ni dañoo nekk pour nekk ba tax sax ñoom seen biir ñuy jinante dañoo jug rek ngir tasaare li nga xam ne moo di électorat bi Euh, desandi ci législative yooyu la bi la yoon dem ba ca Thiès foofu nag euh, kuréel ga nga xam ne moom ba kilifa diine yi amaloon na ab ndaje ak taskatu xibaar yi euh, la ñu xam la rek mooy na Sénégalais yi daal di génne maanaam askan wi ngir rek dem def li nga xamante ne ni moo di seen devoir ni ki dimanche gile waaye daldi di nañuy xam ne ni amal na ab waxtaan bu nga xam ne dénk séq nañ ko ak coalition ci mel ni Yewwi Askan Wi ak ñeneen coalition yi nga xam ne bokk nañ ci jongante bu ni mel waxtaan boobee am na lu nga xam ne daal dina ci euh, tukkee dañuy teewlu Pape mbay euh, moom nag Gustave Emmanuel Faye mu daal di euh, taataan ay kàddoom ñëw nañu ñoom suñuy natt ci ñooñu la ñuy natt ñooñu nag mooy euh, ki nga xam ni moo génn ci question yi ak 17 euh, virgule 56 mooy wàllu ak yeewi aar Sénégal moom euh, ñëw ci deuxième position ak 15 virgule 45 Ousseynou Isaac bi nga xam moo ñëwal bunt bi jury bi jox na ko notu 14 virgule 43 sur Augustin Tine le ministre euh, moom it mu ñëwal fii coalition benn Bokk Yaakaar génn ci ak 13 virgule 60 sur 20 donc kon ñooñu mooy not yi nga xamante ni moom la jury bi noteel ñi nga xam ni ñooy candidats yi ñëwoon not yi nag ñun duñu kenn demal woteel diw wala bul woteel diw waaye li ñu doon liggéey mooy xamal askan yi nooy tànne léegi nag ku wóolu ku wóolu suñu jury maanaam yëf yaa ngi nii nag bu sedd kon askan wi ñu génn woote ah, bu ñu génnee woote nag ñu ngi ñaan ñett ñi ko séq muy askan wi woote nañ ko nañu yónni seen pas-pas te bañ ñu yónni seen bakken waaw yónni sa pas-pas mooy nanga tànn ki la wóori sa diggante ak sa borom kii bu ñëwee sàmmal sa pas-pas sàmmal sa am-am. Euh, mu ngoog gannaaw cees dañuy dem ba ca Podor foofu nag euh, caravane euh, Benno Bokk Yaakaar daanaka nag aw askan bu takkoo takku ñoom ñoom ñoo leen daal di tertu ca gox bi nga xamante ne nii moo di nemet loolu moo waxal ba ka nga xam ne moom lañ ko dénk di ma Mamadou Ilimane Dia di xam ne rek mooy leneen soxalu leen lu rek ñu am ndam ci élection yi ñu dëkk ma dañuy teewlu Moussa Sow Cheikh Oumar Dieng ma ñu fa teewal. Benno Bokk Yaakaar bu département bu Podor amal na caravane politique bu rëy ci Île à Morphil fépp fi caravane bi jaar ay nit yu takku ñoo leen gatandu rawatina fi ci Demet kii di Mamadou Elimane Dia maire bu Demet ñu gën ko xàmmee ci Kalajo Junior xamle na ni mobilisation bu mel nii warul bett kenn ndaxte président de la république liggéey na liggéey bu am solo fi ci Île à la forte mobilisation bi ñu am tey euh, commune de Demet day wone que population bi yëpp mu ngi mobiliser wu mu ngi engagé wu pour assurer la victoire de la liste benn Bokk Yaakaar ci commune de Demet loolu nag li ko waral mooy que ni population il Ila Morphil population Demet dañoo gis seen bopp euh, ci réalisation président de la République et surtout côté désenclavement bi li nga xam ne pendant plusieurs années population yi dañoo nekkoon Euh, ci ay conditions yu métti métti euh, souvent pour nga génnee sa malade problème la woon euh, pour nga génnee sa bagage pour jaay problème la woon bu tawee kenn mënul dem kenn munul dikk loolu léegi loolu yëpp amatul donc population bi nag bu ñu mobiliser wu c'est une façon de rendre la monnaie de la pièce au président de la République kii di maire bu Demet Kaladio Junior amul xel ñaar ci victoire benn bokk yaakaar fii ci département bu Podor waaye nag mu ngi sàkku ci jaspora bi mu wootee ngir taux de participation ci élection député yi mu yokk bu baax ci département bu Podor. waaw ñun enjeu bi nekkul sax victoire bi mais enjeu bi mooy taux de participation bi donc euh, dañoo bëgg tour de participation bu gën a élevé. en tout cas battre record euh, participation bi naan am ci échéance bi passé bi c'est véritablement ça l'enjeu te ci loolu la ñuy liggéey ah depuis plusieurs jours depuis pratiquement deux semaines euh, dañuy def campagne de proximité dem fu ne pour que participation bi nekk une participation record. ngir Benno Bokk Yaakaar am ndam lu rëy ci élection yi maire bu Demet Mamadou Elimane Dia mu ngi woo ndaw ñi ngir ñoo gën a taxaw ndaxte gis nañu réalisation yi président Macky Sall def ci Île à Morphil ca parc ca barke ji itam uh, foofu nag daanaka kuréel ga nga xam ne uh, moo ëmbali leader coalition benn Bokk Yaakaar uh, demoon nañu nag fa nga xam ne moo di diwaan boobee ngir waxtaan ak ñoom lu ñeel wàllum campagne bile maire ba nga xam ne nag moom la ñu jox wàllum diwaanu boobule daal di nañu xam ne danañ def seen kem kattan ba coalition benn Bokk Yaakaar am ndam ci gox bu ni mel dañuy teelu Ousmane Sow ay kàddoom. parce que ñëpp xam nañ ne jamono bi dafa xaw a xat lool ci ñëpp mais ku nekk bàyyi na soxloon toog fi ba heure bi kon xam nga ne nii donc li leen yëkkati daf leen doy li ma leen bëgg a xamal na rek waa Bargeji lii élection bi ñu nekk nii élection président de la république du élection maire du élection ministre du élection kenn donc élection président de la république kon tey jii waa Barkédji bu ngeen amee soxla bi ngeen war a gis président de la république donc da ngeen di jàppale président ba mu am majorité confortable à l' assemblée nationale. parce que président de la république xam ngeen dafa ambitieux bu baax a baax parce que lu mu def ci Sénégal je pense que am na ñi fi def 45 ans mais je pense que deful ko kon nag waa Barkédji dama leen di nuyu. di leen ziar di leen baalu ak di leen jégalu ci toogaay bu yàgg bi di baalu aussi toutes les responsables yi nga xam ne ni suba ba léegi wala 18 heures ba léegi ñu ngi fi toog franchement kenn bougé wul kenn defu dara kon nag monsieur le ministre ñu ngi lay yónni ci département wu Linguère yëpp di la yónni ci président de la république nee ko département Linguère ci ginnaaw la rek fi amul kenn ku fi mën a fii fi naa ne mënul nekk donc ñëpp ñu ngi si ginnaaw président de la république jàppale aussi candidat bi nga xam ne moom la président tànn ci département wu Linguère ñun d'accord nañ ñu ngi ci ginnaawam di jàppale candidat bi pour am national déglu ñëpp baalu ak ñëpp merci mu ngoog jaaji koy jaajëfal moom yaaya ba jaajëfal itam eh, képp ku nga xam ne moo jàpp ci xibaar yi ba mu yem ba juróom-ñetti waxtu eh, soxna Astou Dione dana fi ñëw eh, jukkale li nga xam ne moo ñeel wàllum xibaar ci kàllaamay tubaab laata loolu dañ leen bàyyi seen ay programme de première chaîne privée bu Sénégal